parquet amatu fa ministre de la justice ak lépp amatuñ fa kàddu. Mhm. ministre de la juge mooy àtte ci àqulaay taalam. dëgg la waaw mais soo ko wax na ko dem. man dama xam lu ma neex ci euh, mu sell mi comme ni ko gars yi di waxee. Mhm. dama gis ñaari mbir. mooy yan ak yan. buy wax. Mhm. da gis nit ku dëgg mooy wax. day kii nag. Mm. dañuy wax dëgg te yàlla rek tax. nit ku dëgg mooy wax. alxuraan bi nga xam ne ndeysaan ci moment bi ñuy wax. nit bind na ko bi mu nekkee ci bi ñu ko tëjee. ñëw di ko ko jébbal loolu wax la. Mm-hmm. dëgg mënut a weesu alxuraan. Mm-hmm. kon baatu alxuraan mënut a weesu dëgg. Mm-hmm. xol bu koy génne di ko jaarale ci làmmiñ bi dëgg mënut a weesu loolu mahfuus. kon Seydina Ousmane Sonko da ngay d'accord da nga koy d'accordal ni yàlla moo ko defal loolu. yàlla moo ko defal loo xam ne tey dafa am fasaaxa xam nga liy fasaaxa. moo tax bu paree nga toppat ci waxam di wax rek keneen toppat ci di wax parce que duñ ko tey non seulement parce que wax yee des ci xol bi ñii jëlee ko nii ñee jëlee ko nii loolu yàlla da ko koo defal am na ñoo xam ne mën nañoo toy tey ibbi micro wax ba àggal buñ diggee fii fàtte nañ ko mais moom yor na fi bal de football ñëpp kilifa yëpp di jël bal bi de football. Mhm. taxaw na ci escalier par par benn ci mën a keneen ak keneen. yow loolu football yow. ah waaw <laughs> ko mun naa ko. dañ daan def challenge bi. après ma def na ko rek dama ko war a def. da ko war a def loolu da kenn mënu ci dara. ngeen dem foofu nag fa mu demoon. fan foofu noonu. foofu noonu def ngeen def jombul kenn. de waxuma foofu de. fan waxuma foofu de. fan foofu bërëb ba. bërëb ban bërëb ba. comme lu mu def ngeen def ko. mën ngeen def waaw. man dama gis ñaari mbir yoo xam ne moom moom ndeysaan moom moom xol bi bëgg Ousmane Sonko day kii nii rek. xam nga waaw pour gars tiitaru voilà lépp moom da lu ñu fi def ñu challenge ko. ah waroon nga a dem foofu loolu. moo tax am na ku ne ci commentaire ne la Mafou c'est kii à la fin. <laughs> Hmm? man faruma fenn. mais tu es la fin. man man tu es kii parce que wax na dëgg de parce que man dama gis xool dëgg discours dem bi damaa tàcc. sérieusement bi ma ko am na woon damaa tàcc. Hmm. waaw xam lu tax ma tàcc. waaw. parce que dama ci dégg yu ma bëggoon a dégg. te bu ko noppwaale woon kumpa lay doon ci man moo tax wax bi lu am solo ay nit boo leen jiitee danga nga war di wax. ñu xam ne fii nga jëm. waaye di jëf tamit sëñ bi ah. tekkaaram bu ëpp baaxul ci nguur de. di jëf kër rek yor eh yoral sa kër di doo wax billaahi xool da ngay xëy ñuy dóorante ay jaas yi nga daan wax ji fu mu jógee ñu naan di waxoon parce dara. waaye génn ci kër gi war a wax ak sa sa sa sa njaboot gi di leen menacé rek saa yoo génnaa rek da nga leen di menacé loolu nag. moom parce que parce que parce que njaboot nag doo leen yore noonu. mais lan na bu ngeen fi defee nangam bu ngeen fi defee nangam ma def leen nangam. parce que nangam loolu war a ko def nangam am na loolu ci nangam tamit bu yàggee nag ci lim ci teg. kan la ci teg. Ousmane Sonko def na lii ku ci am preuve waxal. Hmm. teg ci loolu. te loolu mooy doxalub réew di mais sa xalaat rek sa xalaat rek maxuus yow maxuus yow wóor na leen yàlla xam na ko am na journaliste yow boo leen bàyyi ci seen xalaat musiba am. Hmm. dëkk bi tas. parce que xëy waxal la loo xam ne wallaahi di nga xëy ba génn sa kër mu tëla mais ku ci am preuve ci li wax léegi yow li mu wax lépp boobu jëloo ko ci. déggu ma. boobu jëloo ko ci. jël naa ko ci kay. gëm leen ni daal. Mhm. yàlla moo yor programme. Mhm. Mhm. jël na ko jaare la ko ci loxo mu sell bi mu jox ko président. Bassirou Diomaye Diakhar Faye. ñu ne la 2015 du loolu la wax. la nit fekk leen Kër Massar ñu toog mun leen kii mooy nekk président. mooy sëriñ bi ñu koy woowee. waaw lu waral loolu. mooy sëriñ Goundou. mu indi Serigne Goundou ji de. Ah. waaw lu waral ñu woowee Diomaye Serigne Goundou. waaw lu waral loolu Ousmane tamit war naa mën a taxaw publiquement Ousmane Sonko ah, suñu. maa doon comprendre dañu la ko kii. <laughs> non dama ne Ousmane Sonko war na taxaw publiquement suñu président de la République moo ko weesu Serigne Goundou. moo lay wan ni moo lay wan ni titre bi moo fa nekk mais ñoom dañuy dund entre nit. non loolu nañ bàyyi ba loolu nañ bàyyi ba dugg seen nekk wan na leen ko loolu nañ bàyyi ba dugg seen nekk kon lu tax publiquement imam grand mosquée bi muy jug mu jug di ko yëkkati non dama ne loolu nañ bàyyi ba boobu ana ñu mu àndal loolu na bàyyi ba wéet ak jomaay bañ nekk ci seen biir mu ne ko sëriñ Ngundu ñun suñu président de la république Bassirou Diomaye Diakhar Faye la tudd jërëjëf tax mu ko woy sëriñ Ngundu waaw ba tey mbokk ma laaj waaw léegi bi muy yëkkati euh, imam waaw ak bu dàq bi bi mu leen koy def boobu ana ñu àndaloon du militaire yaa ngi fa woon wala policier yaa ngi fa wala gendarme yaa ngi fa waaw déedéet déedéet mais pourtant am na noo am na ko taxoon ci kanam. ci ginnaaw léegi kooku pourquoi wax ko mu jóg yëkkati ko dafa xam ne lu mu war a def la. am na ci loo xam titre la nit kee fay teg boppam am na président bu fi dugg ñun ko simil sa daal yi muy xuloo Touba. yar gi moom kenn weddiwul ne. ah président simil sa daal yi muy xuloo man Serigne Goundou gi moo ma metti quoi. tur bi ko tur bi ko taxalal moo la neex. yow li ñu tudd 2015 2015 léegi ñaata at la. 2015 ak léegi. waaw. yàgg na de neuf ans la ah. waaw léegi boobu lay diggante boobu la ba léegi nga ne yow mu ngi lay door a métti ci ñaar ju ko mos mos ñu ko wax Ousmane wax ni Serigne mais pourquoi mu toog naan leen ay Serigne Goundou ak tax mu ba dugg seen néeg ñu wax war a respecter président suñu président de la république <laughs> suñu ah. président yow yaa waaw moo tax nga war ah, mais suñu président la léegi ba nga ne suñu président waaw ki président jël nag def ko chef du gouvernement muy déglu rek muy mu sell mi. Ah. léegi da ngay xool ci li mu ko defal ci côté boobu ngeen yow ma doo nangu loolu. suñu président la moom ak suñu. président ma Serigne Ngoné mais Ousmane Sonko ñun respecté nañ ko sax mais dañu jàngat li mu wax démb rek. Ah. loolu moo ci nekk mais ñu respecté nañ ko. oui li ngeen jàngat li ma ci jaaxal. Mm-hmm. waaw ñëwal ci li ëpp importance waxoo leen ko. mooy lan waaw ñëwal ci ñëwal ci loolu histoire bi mu nettali. ci Bassirou Diomaye Faye borom ba xanam ëpp mi ñu ne borom ba xanam ëpp mi mooy mooy mooy mooy nekk kii mooy nekk président. loolu waxi olof la boo déggee mbaxana bu ëppee bu defee nii mu daanu. wax ko mm-hmm. mbaxana bu ëpp mooy mhm. jax la mooy mm. moo yàlla yan na ko loo xam ne moom xamu ko mooy mbaxana bu ëpp ah. d'accord mooy njiit gi mu nekk tey waaw ah, bala nga koy bala nga koy interpréter ay mbaxana yu ëpp non moom ni mu ko waxee laa ko waxee que parce que na ko paa na ko la ko ah. waxee waaw la laaj waaw déggin dañuy wax ni li nga yenu àttanuloo ko mhm. Ablaye Wade dafa nettali wax boo bàyyiwul xel mhm. nee na bi muy ñëw papam di ko jox te yére pour mu indil ko fekk na fa damay bañ a juum ci turu kilifa yi mu ne ko di nga nekk président. nee na boobu amul parti ndax parti bu mu créé Senghor tas ko. nee na ba ba mu demee sëñ Ablaat sëñ Ablaat ni ko waxtu jot na mu dem ci Serigne Saliou di toog ci suuf sëñ Saliou ni ko jugal toog ci kaw toog ci kaw jot na waxtu woowu la nekk jël nguur gi. parce que yàlla lu mu defoon ci moom la bu yàgg. président Diomaye yàllaa nga ko ni woon yàgg Seydina soo ko mu sell mii nguur gi ci kii lay jóge ci sa làmmiñu kii. ñëw ci yow ñëw ci yow. moo waral borom mbaxana bu ëpp bii d'accord dégg nga wax bi parce que boo déggee olof di la wax naan bët du yenu waaye xam na lu bopp attan boppay yenu parce que lay yen bopp da ngay gis ñoo xam ni tey li la woon ci nit ñi wute na da ngay gis koo xam ne mun na yenu benn poids dox tuuti ñu ne la dimbali ko mhm. nga gis koo xam mun na ko yén yëgul ni sax mu ngi yenu dara mhm. parce que yàlla mooy defee loolu ci nit ñi ak dégëri nit ñi bokkul mhm. président dañ koy natt ci biddéew des fois jur sa doom maxfuus mu ñëw ci doon sa doom de juddu ñun la lan bàyyil xel kii nga nekk kilifa parce que kilifa te pourtant boobu yaa ngi koy nàmpal lu waral lu biddéew la biddéew la kon so mën nañ jàpp ne loolu lañuy dund la woon lépp ba waxoon waaw loolu ñuy gis la nii lu gis la nii wala looy seet la non da ngay dégg ñu naan li yàlla def bind ci jëwam ok day am ñuy gis lañ koy gis da ngay dégg mag ñi naan la lu yàlla bind sa jë ala dafay am pourquoi mu gis loolu ci jëmm parce que jë mooy leer moo war a tey booy julli ko teg ci suuf nga mën koo suppi waaw su ci suuf di sàbbal yàlla waaye léegi jë boobu nag mooy seede hmm. da dégg ñu naan diw dafa am leeru jë mhm. wala diw kat nangam moom dafa leer léegi bu leer fu ñu koy xoolee ci nit ci jëba da ngay gis naan jëbaa ngay tàkk wala def li parce que jëba mooy seede mhm. Ousmane Ousmane moom gis nga ci moom yow. Eh, kooku gis nga ci moom ne dina nekk kii président. xut bu wëliw woo ko li mu li mu nekk li mu nekk. li mu làmboo de ah. <laughs> li mu nekk raw président. ne ko di bëree baax ko la. non li mu nekkee la. lan lañ a wëliw la moom. après discours ndax nattu nattu yi ñu ko teg. Hmm. nattu góor yàlla dëgg la. waaw natt bi natt na ko démb ci ay yeneen. jaar jaar non non maa wax ak yow sérieusement mm-hmm. liñ mën a xaar moo tax ñu la suñ musaaka naan nattu day yokk màkkaama ku weddi laajal bi anbiya màkkaama mhm. boobu la natt bi yokk ba soo koo toog nii mhm. jomay la ñu ne jomay la moment boobu ma xuus mhm. ku mucc waxañ rek kooku la ginnaaw un contre tous la woon nangu ngeen li mu wax yëpp d'accord ngeen li mu wax yëpp nee nañ dafa baax ak nawet beeg jeunesse bi war a dem bay ji ku d'accord la ñun ñëpp ne dañuy bay ji am na ñoo xam ne am nañ ci lu leen arrangé ak leen arrangé wu loolu am